eh Mr Badji. ça va lu bees. maa ngi lay ziar. namu naa la. mais sama nama dàq sa nam. naka activité yi. sant yàlla bu baax. mais gannaaw léegi da nga leer ah. waaw <laughs> mais xam nga dégg naa fii Amérique ndox mi dañ koo calcaire te xam nga xam nga comme que ñun musiciens yi. waaw ñun suñu liggéey dafa metti amu ñun amuñu repos. ndeysaan donc euh, weeru koor lay doon. Mhm. wala boo demee tournée. ndeysaan mais comme que am naa chance nag ànd ak New African Production. Mhm. tournée pour un mois. one mhm. month. léeg-léeg su ma jéewul week-end yi. yeneen jours yi. bon occasion la pour man. ma passé waale may vacances. su ma xëyee yeewoo. julli ba pare dem na sport. Mhm. ànd ak grand bi. Mhm. su ma su ma bënnee foofu ba pare su ma ñëwee sangu piscine. waaw su ma paree nag su ma mënee génn. Mhm. xam nga ñëw ci parc yi doxantu. ressourcé wu. vraiment décompressé wu. parce que xam nga musique dafa metti. musique musique c' est beaucoup de pression. beaucoup de de fatigue. da ngay daw rek quoi 24 hours. ndeysaan doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg. moo tax boo amee yenn occasion yi. génn euh, dem en tournée. donc di nga profito noppaliku waale am na solo am na solo en tout cas fekk nañ la ci place bu neex boo xamante nii gis naa ne euh, musiciens yi danañ ko soxla uh-huh. mais aussi euh, sa xel mën a dellu si waat ndax maa la fekk yaa ngi woy hmm. macha allah waaw xam nga euh, maanaam xel mu sell hmm. dafa am solo ci doomu aadama du ci hmm. rek ci ci artiste mais képp kuy doomu aadama war nga am hygiène de vie sa xel war na set war sell ak dal ngay récupérer bu baax Euh, parce que booy liggéey liggéeyu xel. Mhm. maanaam liggéeyu musique dafa metti mhm. day laaj nag léeg-léeg. Mhm. nga nga nga dëddu. nga dëddu tuuti. dem foo xamante ni da ngay wéet. soo wéetee. di nga mën a ressourcer wu. di nga mën a xalaat. di nga mën a vraiment euh, noppalikuwaale. parce xel day sonn. xel day sonn yaram day sonn mais xel day sonn. macha allah léeg-léeg sa xel bu sonnee. Mhm. day soxla aussi. Mhm. nga dem foo xamante ni fu dal lay nekk. Mhm. foo xamante ni vraiment di fa mën a wéet. Euh, ressourcé wu donc et que man bëgg naa loolu. loolu moo waral bi ma amee chance nag ñëw fii pour un mois. su ma liggéeyul rek léeg-léeg après damay génn underground bi. am na solo doxantu quoi am na solo comme ni ma leen ko waxee woon ci Senego TV mbokki ànd ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, ci seen émission Bath Show fii ci New York City ñu am ki nga xamante ni moom mooy Pape Diouf bu Génération Consciente mais Pape nag man avant ma lay jël comme euh, invité jot naa def ci yow li nga xamante ni moom mooy ay say jaar jaar jot naa ko jéem a lingatu ko na nga jéem euh, aussi rectifier ma su fekkee ne am na ay jum-jum yoo xamante ni am na. amul benn problème yow jàmbaar nga <laughs> maîtriser nga euh, ñëpp xam nañ ne aussi euh, doomu Pikine nga juddoo Pikine waaye itam ñaari tali ak ginnaaw raay fa nga defee sa enfance. Pape nga daal di nekk nag koo xamante ni doomu géwal nga ndax am na ay artistes yoo xamante ni daanañ ñëw sa kër. daan fa daan fa def li nga xamante ni daan daan fa wu waaye itam daan fa wane li nga xamante mooy seen cofee ci wàllu musique pap tey bu dul woon musique footballeur ngay doon wala plombier. macha allah parce que euh, jàng nga ko ba am ci li nga xamante ni moom mooy di certificat cinquième catégorie. Mhm. Euh, bu dul woon musique bi di nga def football wala nga nekk plombier. bien sûr euh, ci say jaar-jaar pap ku fonk say waajur nga parce que Pape Diouf jaay na omo. jaay na persi jaay na yàpp jaay na daakaande euh, fuutal la yaayam. wooti woon nga it ndox ci bi nga nekkee xale. Papa Diouf nekkoon na Lemzo jamono génnee fa ñaari album bi mu fa jugee entre 1999 ak 2000 ci nga dem créer Génération Consciente. yaag Génération Consciente Pape jot ngaa defa ñoom ay album ndax sa premier album euh, mi ngi tudd Jugal Daago moo nekk sa premier album. sa ñaareelu album nekk live biddew bi ñetteelu album bi nga defoon partie ñun immigré yi amoon nañ ci morceau boo xamante ni mooy suñu morceau préféré xam nga si dara ñeenteelu album nga def jot na cinquième album nga def kas-kas àndi ci ak sa xarit njoletaal ngeen def ci morceau bu exceptionnel sa juróom-benneelu album nga def raakaaju doon tam amoon na sax euh, après nga def ay ay ay rakkaaju caravane yooyu yëpp mu nekk lu am solo mais sax dernier album bi nga xamante ni moom nga génnee moom nga tuddee enjoy mu nekk ay morceaux yoo xamante ni yaakaar naa ci wàllu musique loolu def nga ci est-ce que li ma wax am na lu ma ci ju wala da ngay confirmer. non 100 pour cent intact. moo ci benn yoon macha allahu rabbi. Mhm. je pense que euh, félicitations laa lay wax. merci bien parce que un journaliste. Euh, bu gëstoo. Uh-huh. bu gëstoo. Uh-huh. day dimbali ñi koy seetaan. day dimbali ñi koy déglu. Uh-huh. effectivement. li nga wax sama cursus. yëpp c'est vrai. ginnaaw ma samay waajur julee euh, andi ci àdduna jàngal ma alxuraan jàngal ma école maa ngi juddoo usine ñaari tali ko ñu bagaar. ndeysaan maa ngi yaroo nag ginnaaw raay. waaye xam nga boo ne ginnaaw raay ne Pikine. ne Caaroy ne Yëmbal. ne Parcelles ne Jàmmagën ne Parcelles. c'est la banlieue. ndeysaan donc vraiment euh, ma jàngee benn école bu ñuy wax école BRAC. bu mhm. ginnaaw raay bi nga xamante ni sama jàng soriwul aw ma chance sama premier examen ma lajj ko. Mhm. deuxième bi ma am certificat d'étude ci la ma sam papa ne ma nag comme que yow nangu woo jàng. Mhm. dama lay yóbbu nga jàng métier. mu ne ma bari façon métier nga bëgg. mu ne ko plomberie laa bëgg. mu yóbbu ma sama kër. bàjjen maanaam benn rakkam bu ñu wax wala yàlla kenn borom këram tudd Pam Modou Diop Fall yàlla na ko yàlla xare aljana mhm. mi ngi dëkkoon parcelle unité 21 ndeysaan parcelle falaa defee suma jeunesse très bien falaa defee sama jeunesse def naa fa presque huit ans mhm. donc kër googu aussi comme li nga wax ma doon doomu géwél juddu ci askanu géwél fi ma juddoo usine ñaari tali saa yu ñu mësaan xëy sabari ak tabala yi ak jàngkatu euh, xaadir yi ñoo daan yendandoo ndax sama nijaay dafa amoon daayira xaadir ba pare nag waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou waxayaatu seexal ko am na solo donc euh, mu nekkoon këru ndaanaan bu mag mhm. ndaanaan yu bari yi ngay dégg tey Sénégal ñuy woy jaar nañ foofu ma jóge foofu aussi Parcelles Assainies fi ma doon jànge métier mhm. ki ma doon jàngal métier muy suma papa di suma patron Pape mu Diop Fall yàlla na ko yàlla xare aljana moom ak maire bi nga xamante ni moo nekkoon yaay El Hadj Faye maire Awa ñoo bokk ndey ak baay. sa donc muy nijaay ci El fay mhm. ku ne Sénégal ne musique ne El Hadj xam ne ndaanaan la. Mhm. donc euh, ma bokk ci famille boo xam ne famille bu noble nag. famille boo bu fière. Mhm. famille boo xamante ni aussi vraiment macha allah. Euh, famille aar la. donc suma ay nijaay aussi. ma donn ko ci ñoom. ku ne Cheikh Mandiou ba ñëng. ne Boy ñëng ku ne Boy ñëng ne Assane Jabaay. donc ku ne Assane Diabaye ni Ousseynou ak Assane Mama Dia vraiment ñoom aussi ne Aliou fay ñoom aussi ñoom ñu nekkoon ay tambour major yoo xam ne mhm. ñoom it vraiment réeru lu ñu puso bi ba yàlla dogal ma nekk xale seen kanam ah di émerger ba woy dugg ci man woy ni mu duggee ci man xaw ma ko ndax bu ñu daan woy ma nekk xale à bas mhm. daf ma daan neex ma ma ma leen di toppandoo. donc bi ma demee di jàng métier aussi di jàng école. Mhm. bëggoon naa ko trop bëggoon naa woyantu ba yàlla dogal nag tey. Euh, mu ngi nii bi ouvert. musique bi nangu ma. nangu la <laughs> macha allah aussi euh, nga ciy def euh, lu am solo mais dañuy ñëwaat tuuti ci enfance bi ak Lemzo Jamono ndax gis nañ ne euh, macha allah yéen ñi fa nekkoon artistes yi bëri woon ngeen trop. ku nekk benn nga sa yoon te yaakaar lu am solo la ci dara fo boo fa nekkee di fa yëngatu boo demee ba mu yàgg na nga génn ber sa daal ñu xam ne mii kat la nga jàngoo yaa ngi koy tari. waaw Lemzo Jamono nag daara la école la. Mm-hmm. fa dooree. waaye laataa ma fay dooree jaaroon naa benn groupe groupe bu koñ bu ñuy wax mbooloo bu Patte d'Oie donc mbooloo euh, tey ñi nga xamante ni ñoo ko sosoon on des amis donc des fois on se voit maa ngi nuyu ku mel ni sama xarit Ngala. ndeysaan ah tey kilifa la Sénélec. Mhm. comprendre nga. Mhm. donc euh, dama koy toj léeg-léeg sa sama kër bu amee problème mu électricité. madame moom lay woo sonal ko mu ñëw taal otoom ñëw vraiment muy kilifa bu baax. maa ngi nuyu aussi suma xarit bu ñuy wax Madani Mbay. Mhm. ñun ñaar ñoo daan euh, koy saluer de passage. di nuyu aussi waa groupe Missal ñoom Bàcc. ñoom ñoo nekkoon suñuy aîné. ñoo nekkoon suñuy grand ñoom la ñu woon mhm. bi ma fa jógee nag ci laa intégré Lemzo jamono mhm. di nuyu suma benn grand bu ñuy wax Yves Jackson mhm. donc tey lu jiit njaaga rek mooy njaag tey su ma demee sax ba yore micro Yves Jackson la ndax bi may jàng métier moo gis ni que man bëgg naa ay woy moo ma jël vraiment euh, intégré ma ci musique ak groupe bi ma doon àndal muy les best boy Sidaati Baya Abdou Gueye Serigne Fall donc mu nekkoon histoire boo xam ne histoire de jeunesse la. ba tax na bàcc à chaque fois. ndeysaan su ma rombee parcelle rek. sa xel day ñëw quoi sa xel day ñëwaat day daw. et puis c'est normal. parce que fa laa defee suma jeunesse. <laughs> donc ba après nag ni ma arrêté dem Lemzo jamono. Mhm. tu vois diggante Lemzo jamono ma delluwaat usine ñaari tali sama kër maam. Mhm. parce que boobu sama papa. xamul woon ne damay def musique. ndeysaan nekk naa Lemzo jamono un bon bout de temps. Mhm. di nëbb sama papa que ni man damay woy. ndeysaan donc euh, c' est une longue histoire daal. am solo <laughs> parce que tam jaar jaar ci ci ci ci ci musique sénégalais mm. dafa am solo te sànq maa ngi koy dund euh, maa ngi koy maa la koy junj ku yàggoon na sonn bi nga nekkee xale. Mm-hmm. donc loolu daf lay daf lay permettre boo nee ba nekk mag aussi euh, ak ci milieu bi nga nekk muy musique. Mm. ngay xam fi ngay teg sa tànk xam sa xam sam aussi mm. saa boo génnee album. ñu xam ne lii yàkkamtiwuloo ko. waaw xam nga loolu euh, maanaam dafay nekk ci doorin bi comme man j'ai l'habitude de le diir man self made man laa man dama dooree ci dara liñ naan from zero to hero wala from zero to dollar man dama door ci dara mhm. juddu samay waajuru yar ma fi ma war a yaree def ci man éducation de base mhm. ba pare nag li ñu jot am ñu def ko ci man ma manit ma ne faaw ma rendre leen la monnaie. Hmm? ne naa lu takk suma ndigg comme que maay taaw fexe ba samay waajur ma wàcc leen ci coono. très bien. am loo xalaat ci àdduna rek daj naa ko. Hmm. pour réussir wax nga ko sànq jarul ma ci dellu. Hmm. donc ma jaare foofu dem Lemzo Jamono jàng fa métier bi aussi. mooy nuyu suma grand frère Lamine Faye de passage mhm. ak membre Lemzo jamono yi nga xamante nii mhm. ñoom laa bokkaloon tim bi yëpp mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen di moo tax ngeen wax naan Lemzo daara la Lemzo daara la ma jàng fa nag métier mbapat fa daj naa fa lu nekk daj naa fa lu ne loo xalaat rek daj naa fa yone naa fa fly clavier fly caisse tey naa fa guitare tey naa fa sabar aw naa fa mais nag tey rëccuwuma ko ndax li tey li tax rëccuwuma ko mooy dama ko tey mën naa woy fu ma neex. Mhm. fu ma neex all around the world adduna bi state bu ma dem scène bu ma taxaw. Mhm. damay woy te su ma woyee kenn du ko dindi. Mhm. ndax nag dama ko jàng. très bien la boo xam ne. dama ko jàng. ki ma ko jàngalit. iñaanewu ma ko. muy grand Lamine Faye. am na solo jàngal ma mbaar jàngal ma mbëpp. jàngal ma mbëfër. jàngal ma intro jàngal ma nit ñi arrangé. jàngal ma refrain. jàngal ma luy tourner. jàngal na ma façon musique bu ne. macha allah ma fekkoon fa nag ay ndaanaan. Mhm. ñu jàppale ma te soxorewuñ ma. Mhm. su ma mag Amar Samb sama papa maa ngi koy nuyu de passage. Mhm. ku mel ni que Mamadou Lamine Mayga. ndeysaan. maa ngi koy nuyu de passage. fi mu ko moom fu mu nekk yaa koy mi ngi fi il est toujours là. ndeysaan actuellement mi ngi def business am Italie. di ndaanaan bu mag. seen boo xalaat ci àdduna bi Mayga mi ngi fay dem. donc vraiment il est vraiment rangé. macha allahu rabbi donc ñooñu. ñu couvriroon ma jàngal ma métti mi te soxore wun ma ko. may nga da daan woy ba ci digg ba replié wu ne ma yeggaleel morceau bi Amath Samb da woy ba ci digg ba replié wu ne ma yeggaleel morceau bi. Mhm. donc kon dama koy sant yàlla. Mhm. donc looloo waral tey may gën a sant yàlla parce que dañ na métier. Mhm. jàngal métier. jàngal donc sama métier alhamdulilah jàng naa ko. ba tey fu ma dem rek. sama métier moo ma fa yóbbu. kon maa ngi sant yàlla bu baax macha allah macha allah merci beaucoup ci fàttali bi parce que loolu tam lu am am solo la di leen fàttali ne euh, Chéri Bébé Bass la ñu dalal papay Mohamed leader bu génération consciente Pape Diouf Pape Diouf nag fii ñu nekk moom mooy fan. waaw fii de sama juumul mooy New York. wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, dëkk la boo xam ne ci dëkk yi la. vraiment muy dëkk bu ma neex man personnellement. Mhm. parce que je n'ai que de bons souvenirs fii. c'est waaw fii souvenirs nice laa fi am. Mhm. ba tax na heure bu ma fi ñëw rek dama yàkkamti. Mhm. ñëw New York. parce que déjà dëkk bi neex na ma. atmosphère dëkk bi neex na ma. nit yi fi nekk baax nañu. très bien boo ñëwee dañ lay teeru. xam nga salon boo dugg restaurant boo dugg kër boo dugg vraiment dañ lay romb sax ci ci ci ci tali bi di la tàllal loxo di la béggee di fotowu ak yow kër boo dugg duñ la bëgg nga dem dañ di la invité. di la teral. Mhm. loolu mooy Sénégal. Mhm. loolu mooy Sénégal. Mhm. donc vraiment. boo jógee Sénégal ñëw New York yaa ngi waa Sénégal génnoo Sénégal. non génnuma Sénégal man léegi su man xoolal man benn destination la am su ma wàccee. Euh. dem naa New Jersey. ndeysaan fa laay dem tëdd. ah mais su ma amee lu may réglé. dogguma la dogguma la xoolal fee di nga ngay gis ne. mais gis naa ko. mooy New Jersey. mais Jersey ngi nii. Jersey ngi nii. <laughs> xam nga léegi man maa ngi Hasbrouck Jersey Hasbrouck. léegi Jési maire bi sax xam naa ko. mais macha allah uh-huh, vraiment. Uh-huh. c'est bon de découvrir dafa xam nga àdduna dafa am dafa am euh, solo. dèjà àdduna boo ci nekkee. dafa uh-huh. am solo. ngay découvrir xam nga di di dem foo mosul dem. di di gëstu. Euh, et que loolu daf ci am solo trop trop. donc vraiment. moo tax su ma man su ma ñëw tournée américaine. damay kontaan parce que damay xam ni. su ma ñëwee. dinaa liggéey gaa. waaye nag dinaa profité dinaa noppaleeku wax dëgg yàlla. dama koy waaj dal maanaam. dama koy waaj am na solo. léegi na ñu ñëw ci li waral nga ñëw Amérique ndax euh, gis nañ la Atlanta nga tëgg comprendre ñu carrément li tax nga nekk fii lan yan concert ngay amal fii New York ak Amérique waaw xam nga euh, yàlla dogal na mhm. presque euh, depuis deux mille quinze presque deux mille seize chaque année ma ñëw Amérique di liggéey ak benn benn benn benn benn benn label. label bu tudd New African Production. Mhm. donc euh, label boobu ki ko jiite di sunu mag Birane Sarr. ndeysaan ñu ko ñuy waay waay baax au passage. New African depuis la yore exclusivité Prince Art. très bien di liggéey ak ñoom. Mhm. Euh, waaye li ci am solo te neex ma ci mooy euh, maanaam. un artiste boo nekkee ci carrière li nga war a def sa réew nga def ko da ngay ñaan yàlla nag di teg ay paliers sur le plan international sur le plan world music et que Birane mu am ci nag connexion bu wóor. ndeysaan tey bu dul man rek. Mhm. il a il a pour la musique africain rawatina nag la musique sénégalaise. Mhm. tey. liggéey na fi ak Fallou Dieng andi na ko fi suma mag Fallou maa ngi ko nuyu de passage. ndeysaan barki dem rek bi ñu joué symphonie. Mhm. mi may yónnee message di ma ñaanal. tey ku mel ni mon frère Yoro Ndiaye. ku mel ni tey Aïda Samb Pa Birahim ku mel ni tey Ousmane Gange. Mhm. ñëw nañ fi ci cadre New African Production. Mhm. ak yeneen ak yeneen yeneen artistes yoo xamante ni sax ci côté africanité bi. donc euh, waaye moom bi may xamante moom c'était en 2007. c'est ça ma ñëw tourné si bi ñuy def sound check ma ko grand dama yàgg a dégg sa liggéey et ma dégg sa crédibilité ak sa professionnalisme. Mhm. bëgg naa nga tàllal ma loxo jàppale ma. moom grand bi daal ma incha allah je te le mhm. mais jotagul dellul Sénégal nga liggéey. Mhm. am nga carrière boo liggéeyee ba ci kanam. incha allahu rabbi on va travailler. donc depuis ñuy liggéey euh, mu jël sama carrière en main. donc su demee ci EPAB yi. parce que am na laysin boobu. Mm-hmm. su demee ci EPAB yi nga xamante ni maanaam forum yi ñuy def. Mm-hmm. pour World Music. Mm-hmm. di fa yóbbu sumay CD di fa yóbbu suma biographie. ba yàlla dogal 2016 loolu sotti. bi ma fi ñëwee def naa fi presque sept festival festival bi ma ci gën a neex mooy le festival de Wisconsin. xamante ni joué nañu devant quarante mille personnes. donc ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey. ubbil nañu ay portes. ubbil nañu ay opportunité mhm. si le plan international. Mhm. ba yàlla dogal tey euh, New African Production ak Pape Diouf. Mhm. liggéey bi gën a avancé. macha allah ndax boo xoolee soirée yi ñu fi daan def. Mm. da nga daan ñëw Harlem ngay joué. donc euh, de zéro heure minuit à cinq heures du matin. mais genre soirée yooyu pour nga am opportunité pour producteurs yu mag yi wala tubaab yi ñëw seetaan si la. day compliqué parce que day guddi. Mhm. mais ren yàlla dogal. waaw mu jël symphony space. Mhm. digg downtown. Manhattan. Mhm. Euh, ba nekk ba pare nekk Windows. commercial. maanaam événement boo xam ne day day démarrer de vingt te xam nga fii sénégalais yi. dañu busy. vingt heures dina fekk ñii ñi ngi seen ñi ngi liggéey ñi wàccaguñu. ñii ñi ngi ci seen store yi ñii ñi ngi ci salon yi. ñii ñi ngi ci restaurant yi. mais li ma ci gën a neex d'ailleurs maa ngi profité sax ci occasion bi di leen remercier. ci bés boobu ñu doon def tuddee ko sargal jigéenu. sargal jigéen diaspora yi mhm. ñu ñëw en masse. ndeysaan déplacé wu en masse. bàyyi seen liggéey. Aminata moo bëgg Omar dee. moom la ñu bira nii sax ci image yi. de vingt heures. Mhm. à zéro heure vraiment. ñu leen di remercier ñu ngi remercier jigéenu diaspora yi. ndeysaan vraiment jóge nañu. ay liggéeykat lañ de ay la. <laughs> ndeysaan dañoo nangoo liggéey ba pare nag am jom. Mhm. bëgg seen réew ndax luñ fi liggéey rek. Mhm. yóbbu nañ ko Sénégal mhm. investir ko fa. ndeysaan kon donc je pense que ni bàcc. loolu lu am solo la. ñu ngi leen di sant. ndeysaan di leen gërëm. donc euh, góor ñu aussi déplacé wu. ndeysaan keroog symphonie macha allah. ñëpp ñëw nañu. tubaab yi ñëw. waaw tubaab yi ñëw. bi ñu xëyee aussi release presse bi gis nañ ko. waaw dem nañu ba non seulement presse américaine bi bind nañ ci. waaw ci réussite événement bi. Mhm. mais ba ci presse brésilienne bi. ndeysaan bind nañ ci. Mhm. kon donc loolu. kon loolu fierté la def contentement. bu mag fierté Sénégal. ndeysaan pas man mais fierté Sénégal. Mhm. ndax ñun lépp lu ñu def rek. Sénégal la ñuy jiital d' abord. Mm. ndax Sénégal la ñu am mooy suñu réew. fu ñu dem tey Sénégal moo ñu fa yóbbu kon it fu dem Sénégal la ñuy représenté. Mhm. voilà am na solo Pape Diouf euh, génération leader bu génération consciente la ñuy dalal fii euh, ci biir a New York City sànq nag ma maa koy wax parce que aussi euh, Pape vraiment nag musique yaa ngi ciy bëgg a donc lu bare bëri tey yaa ngi ko ciy def. te aussi am ñoo xamante ni label bi nga doon tudd sànq muy Prince Art. Mhm. am benn liggéey bu professionnel bu nga xamante ñu ngi koy liggéey Pape mos ñu ko mu coow. mës ñu ko dégg mu wax mës ñu dégg mu mer loolu lan la wala Pape dafa am staff boo xamante ni ñoom ñoo ko jege di liggéeyandoo ak moom. waaw d'abord loolu ndimbalu yàlla wax. Hmm. parce que kuy jéggi dex rek doo reeku la te sunu musique. Hmm. métier bi ñu nekk dafa sensible te nit nit rek nga mën a doon. déjà nit. Hmm. nit rek nga mën a doon. Euh, kon je pense que ni tey loolu ndimbalu yàlla la. beneen bi ci toppit wax dëgg yàlla effectivement am na encadrement bu baax am naa ay kilifa yoo xam ne mhm. tey ñu ngi suma ginnaaw am na ay xarit yoo xam ne aussi mhm. ñu ngi suma ginnaaw mhm. ma leen di déglu nag su amee lu ñu war a def dinaa ci waxtaan ak ñoom suñ ma nee suñ ma waree wax dëgg dañ may wax dëgg te ñi may wax dëgg am na ñoo xamante ni sax maay seen kilifa ah. très bien maa leen mag fop mhm. su may wax ak ñoom sax duñ ma xool. mais yàlla dogal na ba buñ ma waree wax dëgg. Mhm. dinañ ma wax dëgg ndax loolu mooy ànd. Mhm. tey président de la république il a tous les pouvoirs. mais bu jaree mu jël ay conseil spécial. ñu koy conseillé c'est parce que benn ram rek lam rek bu yëngatu. dëgg la loolu aussi. dëgg la. Euh, alhamdulilah sant mhm. yàlla daal. am na solo am yàlla muy yokk aussi. am na am na am na solo. Euh, donc yan concert léegi moom moo la dese comme que léegi ak fan ak fan ngeen jot a tëgg sax yéen. waaw euh, xam nga suñu premier concert ñi ngi woon Atlanta. Mhm. fa la njëkk a mhm. mu nekkoon soirée bu rëy. déjà. association des Gambiens. yi nekk Ajera. Ajera. ñu nit ñu baax ay jigéen ñu ñu fonk seen liggéey maa ngi remercier la président Moussa Dieng. nit ku baax. Mhm. Yam Aydara. Mhm. nit ku baax. Mhm. waa Atlanta di remercier aussi suma rakk Griff Sougou. ndeysaan di remercier suma frère Ahmed Fofana. vraiment gars yi jàpp nañ ci bés bi. Sénégalais yi génn. Gambien si génn. mu nekkoon événement bu rëy rëy rëy. ñu ngi leen di sant bu baax. donc bi ñu fa jógee. ngeen dem fan. ñu ñëw New York Symphony. très muy samedi bi passé. wax dëgg yàlla may remercier ñi fi teewoon ñëpp. di remercier suma yaay Asou Faye jàmbaar liggéeykat nit ku baax mën a ñafe mën a ñafe fonk jëkkëram aussi tamit fonk jëkkëram mista mm. lamat barki dem rek mi ma naan pap mm. sama jëkkër ji moo ma jàppale ba ma mën a bëree ba daan ndeysaan maa ngi koy remercier bu baax ah, ñu koy nuyuwaale au passage suma mag mama fay soxna Fambaw mm. xam nga ku ci mel ni Malay Ndiaye président association bu Sénégal mm-hmm. Sadio Bari mm-hmm. waa association bi yëpp ñu ngi leen di remercier di remercier aussi le consul ndeysaan El Hadj Ndaw dëgg yàlla Dóor waar Ndaw. suma mhm. rak. Mhm. suñu xarit maa ngi koy nuyuwaale Ndaw borom Dóor mhm. di rak Birane di suma xarit. nit ku baax jàpp na ci. suma rak Bousse Ketchup. wax dëgg yàlla bés bi daal ñoom xaadim kase. suma mag xaadim kase. maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax. moom it sonn na ci Issa Bass. suma goro. donc symphonie bi daal vraiment. ñi ci jàpp ñëpp. ñu ngi leen di di leen xamal ni nag déwén moom. ah non déwén moom parce que grand bi dafa am lu ma promettre. bul fàtte ne daaw aussi sama stage bi gars yi toj nga ko de. waaw xam nga mais mais mais Pape foofu foofu mhm. muy taw. muy taw. Mhm. Pape Diouf nekk si seen di way. waaw xam nga sa métier. Mhm. bàcc soo ko bëggee euh, lu ñëw ci yow rek plaisir la et puis xam nga nag muy taw fan si taxaw di la seetaan. jóge ay kilomètres. ndegam ñoom ñoo mën a toog jël seen parapluie. ko di la seetaan. Mhm. mais asantama ak yow. Mhm. et puis nag ndox xéewal la. Mhm. loolu c'était beau. nga nekk sur seen muy taw. ndox mi di la dal dal say fans. ngay woy di leen bëggal. loolu c'est vraiment